seetaan à travers Equivox TV ñu ngi leen di jaajëfal te di leen dalal comme ni ngeen ko gisee nag ñu ngi fii rek euh, cité kër góor gi ñëw euh, ngir euh, teewee li nga xam ne rek mooy déclaration bi nga xam ne Bougane Gueye Dany nekk président wu D-Media waroon na ko am fii nii ci biir kër Ousmane Sonko mais malheureusement ñun waa presse bi mënuñu am accès rek ci biir kër gi ba dañoo obligé sax ñu ngi nii ci biir koñ bi taxaw li waral li nag mooy ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoom ñoo taxaw rek baare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 de son immunité parlementaire du fait d'une majorité mécanique aux ordres de qui vous savez, malgré la séparation des pouvoirs, j'ai tenu à lui manifester toute ma sympathie et lui dire que je me tenais prêt à ses côtés face à cette entreprise machiavélique. Vous savez, Ousmane Sonko et moi, au-delà de la génération que nous partageons, même s'il est mon aîné bien sûr, nous partageons les mêmes convictions pour mettre résolument le Sénégal sur la voie du développement et aussi intégrer notre pays dans le giron des États de droit. Depuis l'éclatement de cette affaire, nous assistons à une chasse aux pastéfiants. Il faut que cela cesse immédiatement. Et nous demandons à Macky Sall, le président de la République, leur libération immédiate. Il s'agit de Abbas Fall, de Biram Souley, de Hassan Diouf, Guy Marius Sagna, Clédor Sène et depuis ce matin, Dame et Karim Houroum Ces confiscations de liberté témoignent d'une régression démocratique flagrante. Les embastillements d'esprit libre doivent cesser et personne ne pourra contraindre le président Macky Sall, si ce n'est nous, les jeunes et les patriotes de ce pays. Toutefois, il faut rappeler que ce pays a une longue histoire sur le plan de la démocratie et plusieurs générations se sont données corps et âme pour y arriver. Nos acquis démocratiques historiques il faut les préserver. L'honneur de chacun d'entre nous est de travailler pour la préservation de ces legs acquis de pendant près de 70 ans. D'ailleurs, le silence de certains de nos intellectuels et hommes religieux devrait interpeller notre intelligence. Refusons alors le délitement de l'État républicain. On un pouvoir sans que cela soit un pouvoir d'État. incarne et assume aujourd'hui, avec bravoure d'ailleurs, les charges naturelles de leader incontesté de l'opposition. Et ces idéaux sont partagés par tout ceux qui aspirent à un Sénégal meilleur et pour les Sénégalais d'abord. Ce statut fait de lui l'homme à abattre, après Karim Wad et Khalifa Sall. C'est regrettable ce qui se passe au Sénégal depuis 2012. Aujourd'hui, c'est au tour de Ousmane Sonko. Alors, qui sera le prochain sur sa liste, lui Macky Sall Peut-être moi, peut-être vous, qui sait Les faillites constatées des classes intellectuelles et politiques qui excellent particulièrement dans les compromissions. Cela nous oblige à enfiler nos tenues de combat, nous citoyens sénégalais, pour défendre la République. Le pouvoir d'État est au-dessus de ce qui incarne l'État lui-même. Alors, Macky Sall doit comprendre que le pouvoir de l'État est au-dessus des hommes. Que ce soit clair, aucun chef d'État ne doit utiliser les instruments qui régulent notre État pour éliminer des adversaires politiques. J'interpelle alors notre administration, nos forces de l'ordre et notre justice à œuvrer sans relâche pour la consolidation de l'État de droit. Avec cet épisode malheureux dont notre frère Ousmane Sonko est victime, un changement de paradigme s'impose dans une démarche de rupture progressive mais citoyenne. Donc, qu'on le soit clair, une démarche républicaine pour remettre le Sénégal sur les rails d'une grande démocratie. Enfin, à mon frère Ousmane Sonko, je lui dis qu'il a tout notre soutien et que par ma voix, le soutien de tous les hommes et femmes du mouvement Gumsebop dans cette épreuve. Ousmane Sonko utiliser tous les moyens légaux et réglementaires prévus par la loi pour répondre ou ne pas répondre à la justice en qui nous avons une entière confiance. Je vous remercie. voilà mu nekkoon nag Bougane Gueye Dany nekk euh, président wu des média dafa ñëwoon tey rek fii nii euh, ci euh, kër Ousmane Sonko ngir def benn déclaration mais comme ni ma leen ko waxee woon rek ci njëlbeen bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk presse bi mënuñoo am accès biir kër Ousmane Sonko. ba dañoo obligé rek xaar ko euh, ci biti pour euh, mën a wax ak moom wala sax am sax li nga xam ne moo di déclaration bi